بها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو الطريع الحساب يل لنا ما يل تسوف دقت كبا مجيح نيني نقص الأطراف من العلماء والفقهاء وهي سيدنا عباس دفني كيف كي دفلو باح بنو تاكي ماما الله جمالي كيوندوم تاوم بجيين شانا فاسي تما في حاج مالك دفني اي سن بابا كمي اي بوغ سيد حاج مالك وحون ديرو دندم daf ko daggal istixfaar bu feeñ ci ay woyam yu bare wa rabbini bi qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu yàlla nee na luy sama yoon lan mooy sama yoon si fas si yàlla dafa nekk buur borom buur nag li mu am dafa koy denc su ko soxlaa ñëw jël ko bi muy bind fas yi tàgguwuma bi muy bind Pape Malick tàgguwuma daf na ko denkoon rek kon alalam la ñëw jël si ñàkk nañ na ko réere ñàkk nañu ku nga xam ne kii li mu dagale si expérience kenn xamul nu mu toll expérience si jamonoy bàyyam si Babacar expérience bu nga xam ne bi si keppaaru magam Cheikh Ahmed Tijani pendant quarante ans si keppaaru magam Cheikh Abdoul Aziz kon tey kooku moo dem ñi nga xam ne ñoo def gannaaw ñoo am perte bu rëy rëy ñi naan yàlla rek mu jox nu kàttan kàttan bu nga xam ne bii comme ni ko sa maam si Hadj Malick waxee waxee woon yàlla yóbbu nga fàcc soxna fàcc si Eh, doomu adama rek la su fekkee ni joxooma kàttan maam alaaji malik du ma ko nangu dum ko mën dum ko muñ kon tam tey sunu bàyyi suñu soppe sunu royukaay Pape Malick dem na ñu ñaan yàlla mu jox nu kàttan jox ko mbooleen julit kàttan duñ ko mën muñee waaye baayam dafa wax ni man sëñ Babacar waaw sama taalibe wala sama soppe du yëg sukuraat si tolloo man maa ñëw taxaw Babacar su fekkee nguur gi dog na ba nu sànq sànq julee ko di ko dugal ci biir bàmmeel ne ne man sëñ Babacar may ñëw taxaw gàddu ko dogale ko yóbbu ko àjjana yal na ko yàlla defal doomam ji waaw te nag wa rabbini bil qada rabbi musabirani loolu rek mooy ala na ñu yàlla jox kattan